Sénégal danoo préféré ngay coggu di topp ci ginnaaw nit di leen maral seen bun te moom bokkul ci yooyu ndax bañ kan la Balla Gaye 2 guerrier la champion la sama xarit la mais Balla yow ak Sa Thiès waxtaan leen déglu naa sa interview déglu naa interview am Sa Thiès nee keneen mooy idolam pas yow nekkoo idolam mais keneen moo nekk idolam ci làmb ji mais loolu c'est tout à fait normal ndax yow Balla Gaye 2 sa papa moo la jàngal bëre moo la yar ci làmb moo leen wan yoonu làmb wan leen nan la ak naka la mais danga ko fee bàyyi nga ne man tey seen mooy sama idole te sa papa nekkoon na fi lan moo tax sa papa nekkul sa idole que Tyson moo nekk sa idole beneen bi ci tegu dégg naa la nga ne yaa ko wutal kër yaa ko wutal oto yaa ko defal nangam loolu sax jërul wax média yi bu la tiimee sax jërul wax parce que yéen a bokk ndey yéen a bokk baay lépp loo ko mën a defal na yem entretien tax danga koo war a def cëru mag la lay jox Sénégal nag mag mag la Sa Thiès mënoo fexe ba Moussa Kawaane ba mag sa mag waxtaan leen famille dafa am importance Balla lépp day jeex alal day jeex lépp luñ la mën a jaay wala ñu la koy wax ne ñoom mën nan la koo jox ko bokkal ndey ak bàyyi muy sarax ko kon foofu famille c'est très très très important waxtaan leen seen biir bàyyi détails yi bañ cee dugal kenn ndax yow sama xarit nga Balla sama waay nga te sama mbër nga yow rek laa am ci bër ak Siteu ñëpp ko xam man du ma changé position Salim sama grand frère la sama lépp la te nit ku baax la waxtaan leen yéen ñaar bañ cee xajal kenn balla grand frère nga kii sa rakk la jaajëf